tabatu tuuba daaru saam njiit la di bàyyi sëriñ lay ñu ràññiku lool ci bépp jumtuwaay bu jëm ci dundal diine mu yaatal ay bànqaasam nag lépp lu ngeen soxla ci wàllu alxuraan ci mbindin yu wuute ak ay mool yu wuute rawtina kaamil yi nga xam ne sëriñ abdoulahan mbàkke moom sëriñ soy bu moo ko bind wala sëriñ amdun loo wala sëriñ as jaxate waaye yeneen xeeti kaamil ba ci kaamil yu doore yi nga xam ne ñu bëri taamu nañ ko ngir joxe ko àddee wala jox ko ku ñu fonk bu dee téere xam-xam yi niki noonu wala téere sëriñ Abdourahmane Mbacke Daaru Muxti wala téere sëriñ ji Mbacke yi nga xam ne moo xam muy tombi sëriñ bi di waxtaani sëriñ bi wala sax ma faatewul jinaan di diiwaan bi nga xamante ne bii dajale na lu toll ci juróom benn téeméeri xasaayit ak ñaar fukk ak ñeent bu dee élèves yi tamit dañu leen a beral loxo bépp téere bu ñu ñuy teewoo ci seen wàllu programme moo xam muy arab wala français am na fi lu jëm ci wàllu col lépp lu ngeen fi baaxoo gis rek dañu ko yokk waaye wàññiwuñu ko. Touba ca kanam. ni mu doxee ak fi mu àgg sëñ Touba rek la. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man tey ni mu doxee ak fi mu àgg niiw na mbooloo mu jóg dara tax leen jóg ñu jóg àgg fa déedéet dëgg sëñ Touba amul benn société boo xam ne. yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën ëpp doole ci Sénégal wala bu ko ci ëpp doole doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek la ak mayam yëmul fenn fu ngeen bëgg ma ko mën na ko dina ko fees bi nga xam ne man caa bokkoon fii lañ ma fekkoon a ànd ko yéen ndokk bi nga xam ne caa bokkoon mbokki taalibe yi képp ku bëgg a barkeelu ci Touba ca kanam ngeen yónnee Wave wala Orange Money ci numéro bi 78 544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 ca Touba nga xam ne ñëpp dañu leen ràññee ci sanitaire lépp loo bëgg ci sanitaire jaaree ko ci chaise anglaise suspendue ay armoire lavabo ay baignoire et cabine hydromassage ay levier de cuisine américain ay chauffe-eau électrique ak solaire léegi soxlaatul ngeen di dem Ndakaaru wala ngeen di dem à l'étranger di commander quoi que ce soit lépp am na ci showroom bu CCPS bi nekk Touba ci wetu rond-point héliport loo soxla ci robinet colonne ou chasse d'eau accessoires complets pour salle de bain anti-rouille. Toute la gamme de tuyauterie polyéthylène est présente à CCPS Touba sur toutes les dimensions. Des fontes de très bonne qualité avec toutes les dimensions, ainsi que des motopompes en collaboration avec la marque Shimg. Des fontes de très bonne qualité afin de promouvoir la consommation locale. CCPS fournit des tuyaux d'irrigation, des gouttes à gouttes, des rain pipers pour nos amis agriculteurs. Bâtiment plus sport si Touba mbokk yi ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàppaleen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag a mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol cent soixante sur soixante carreaux de haut ay grès italien tout genre venant d'Espagne vingt sur quarante sur damani am nañu ay produits yu Inde sur trente sept wala yeneen gos yu àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaru waañ sur trente sept lépp mu ci waaye nag mbokk yi ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am nañu ay contact dernière gamme ay lumière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 waaye téen leen xool asamaan si nga xam ne bala koo kenn gis faaw nga téen ñoom ñaaru ñooñu am na mbindeef mu mu ca sàkk walla mbindeef yu mu ca sàkk muy guddi ak bëccëg ku dem sa moroom ñëw te kenn du ci yàqal sa moroom ñëwuk moroom nee na loolu ko amum xel wuroo ko bàyyi nii muy dem rek te xalaatoo ca dara ndax buy dem dana yóbbaale moom guddi waaye bëccëg it buy ñëw dana ëndaale diggante boobu nag fi la nit di dund diggante asamaan ak suuf ak diggante guddi ak bëccëg lu yaatu la waaye ku am xel ku nekk danga ci xamee ne yàlla rek mooy yàlla yeneen yi nit ñi di wuutante bu kiy ñëwee kee dem léeg-léeg kee tardé léeg sonn gaaw a dem waaye ñoom ñaar ñooñu moom ba ñu leen sàkkee ba léegi noonu la ñuy def foo dem ci adduna bi nag jant di fenk di la fa fekk di so di la fa bàyyi foo demaat it foofu noonu lay mel bu ñu ko gënee jegeel si loolu moo tënk waxtu yi yooyu mooy ñëw ba ñuy lim ay at ak mu jàll ñu tudd meneen am at nag bu ñu ko waxee nit ne ko déwén la day defe ne déwén moom du ma sa agsi rawati nag ñu dig ko ca loo xam ne mënu koo ñàkk suñ ko ci diggee loo xam ne da koo yàkkamti day yàgg ci moom lool nag euh, suñ ko nee fekk at ngay dee day wëlbatiku day gaaw ci moom lool mu ne at dong at moom nag ñuy dikkee mu yàgg ci moom ñu dikku kii mu gaaw ci moom euh, ki koy xool naan fii ba déwén daa yàgg wute nag ki nga xam ne dañ ko ne feeg déwén ngay faatu day mel ni ci moom xef ak xippi rek kon boog dundug nit moom it munta weesu fii ak déwén bu déwén ñëwee mu ñaanal fekk ba déwén muy ñëw di dem di ñëw di dem ba ba ko dee di bett ñu xëy rek ñu ne ah romb na ma fii bii wala léegi lañ toogoon fii koo xam ne buy ñëw du tàggoo nag boroomam xel dëgg dëgg dëgg moo cay naan jàkk di ko xool xam ne guddi ak bëccëg yi dañ leen a war a sëf bañ fees dell mu yóbbaaleel lu ko ndax lu mu yàgg-yàgg nii ñu fi wuutoo ña fi ñëwoon noonu lañ ñu fi wuutoo ña ñu fi wuutu ñeneen wuutu leen fi kon bokk bokk na ci li ci nit di xalaat ci at mu jeex ak at mu dëgmal lu mu ko fekkoon ci lu baax te mooy loo xam ne ba mu koy def ba ñu ko ko fekke ba ñu ko ko li ji mu fës yéene wéyal ko waaye lu mu koy defoon nag ci wéet te bëggut ko ko fekke bëggut ko ko li ji mu gaaw teggi tànkam ndax xam kañ la dee di dikk waaye ki am xel dëgg-dëgg moom day jëkkanteeg jamono jamono ji mooy ñëw ba mat guddi guddi wala bëccëg walla at du ca xeeb dara lu baax lu mu ca war a def waaye du ca yéem lenn lu mu ca def te waru ko caa def te tuubu ko guddeeg bëccëgam daal mooy fexe luy dolli la muy am ëllëg yàlla ñu ko yàlla jàppandalal waaye fa muy dox jëm nag dëgg dëgg mooy am ngërëmal suñu borom yar nañu ko yàlla defal mooy fi muy waxee ne inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya jazaauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu dalika liman xashiya rabba ki am xel dëgg itam mooy koo xam ne saa bu nelawee ba yeewu tàllal tànk mu tàlli mu tàllali yoxo mu tàlli xool gis la doon gis bii laata muy nelaw la muy jëkk xalaat mooy am na ñoo xam ne nelaw nañ te yeewuwuñ bii lum koy jañ woog yoxoy mbubbam mel ni ku fas yéene jëflante kenn wala mu woog tànk tubayam fas yéene mel ni ku bëgg a daw ki am xel dëgg noonu lay waaje saa bu yewoo ci jàmm fas yéene làmmiñam wi duutu ca wax lenn lu dul lam ca war a wax fu mu dégg lu baax mu wutali fa te loolu la muy mujjeeg nit ki fa muy fa mu koy jëmee mooy xol buy dund boo xam ne suñ ne yàlla nee na rek mu ne tëreet ndax ragal ko ak it fu ñu nee fee lu baax a fa nekk mu wuti fa ndax rek yaakaar fa payuk suñu borom googu ëllëg moo tax suñu borom ne ñi nga xam ne dañoo bàyyi adduna ak li ci biir adduna jël ca waxtu fas yéene waxtu wu ci dem fees dell saa su nekk yàlla da leen di joxoñ aw yoon woo xam ne duñ gëlëm duñ réer walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa al muhsinin moo tax bu ñu xoolee at yi ni muy doxee gone goo ci gis mu ne laas akub sikkim tàmbalee ba jaaw dañuy xam ne at nam toll moom la doon toll waaye dañoo sëf at loo xam ne attanu ko moom ci boppam mu yanu loo xam ne attanu ko léeg-léeg sax nga ne ci fëgg-fëgg nit ne ko tëri jot na mu tiit rek tàmbalee wax la mu doon xalaat la mu doon gént ci biir nelaw yi ñoo ngi ci dégg biig rek koo xam ne da liggéey liggéeyloo nit sonal ko lool du ko may fi mu yekkuk nàkkam bis muy nelaw rek ñu ne ko pëkk pëkk ne ko gaa yaa ngi tëri rek mu tudd tudd kooku naa ko def ma nànk koo ku ne xam na ne nelaw yam doon nelaw yàlla ko booleeg nit waaye su mënoon a ñàkk nelaw dana dagg nelaw yo dem ca loolee ko yi taxaw ba xañ ko jàmm loolu nag bokk yi suñu borom rek moo ko jaar moo tax sayidna abdullah ibn amr ibn alxataab radiallahu anhuma daana wax ne mas naa wax ne yonent bi sallallahu moo jàpp ci mbaggam pëkk pëkk mu xool ko mu ne ko adduna yàlla moo fi moo fi indi nit ki moo ko fi jële nit ki nag su bëggee noppalu ci àdduna day jàppee àdduna ni ab doxandeem bu dem ci dëkk du teg du teggi waaye daf ko jàppee ku jaar ci ab dëkk rek yoon waa fa jaar mu jaar fa rek di dem ni koy misaale mooy ku jaar ci ab dëkk boo xam ne ramp lamp yi dana ràññ tabax yu gudd lool mu jaar fa guddi dem lamp yu leer yaag tabax yu gudd lu mu koy jare taxu koo jóg yoon waa fa rek mu jaar fa di jàll moo tax jamono bii Sëñ Abdul Ahad doon tere li muy tere fi Tuubaa gannaaw bu ko yàlla tere ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dekkalaat ko fàttaliku nit dafa am ko daa jaar ci biir Tuubaa di jàll ci beneen dëkk ñu teg ko loxo ne ko xanaa xamuñu lii dañ koy tere mu ne xam naa ko de ñu ne ko dina nga indi ko fi mu ne jëm si wu fi yoon wee fa jaar rek ma jaar fi loolu nag la Seydina Abdullah ibn a doon misaal ci àdduna dëkk bi taxu ko woon a yoon waa fajaar rek xamut mën naa bañ sax xam ne oto bi danaa fa taxaw bañ di xutil waaye nag ki tax muy wax mooy ku wuuteeg kooku lam doon def bañ di ko tere daana waxit ne saa bu teg ku san jotee ngoon daal ci misaal loo ca war a def bul ne naa bàyyi ba xëy ndax nit tëdd na ba tey yeewu waaye loo bu la yàlla mayee itam nga xëy yeewu tàllal tànk bu nekk mu tàlli loxo yi tàlli na mu war a tàllee bul ne naa bàyyi ba ngoon wala ba ker gi sedd ndax xamoo ker gu sedd wala ngoon fu mu lay fekk moo tax mu teg ca ne wér goo gis rek wéré yi mi ngi koy yott dana ko jàpp dund gis dee dana ko yott mi ngi koy yott dana ko ne bis nuus jàpp bokk yi di xalaat nag ak xalam ci lu ñuy séentu ba mu jàll rawatina atum lëm fukki weer ak yaaw mooy saa bu nit ki njariñ la meññeen ma bokk na ca mu regle boppam regle ay jëfam daaw ak ren lu mu fi def ci lu baax daaw fi daaw ba ren lu mu fi taxawe ci farata yi suñu borom santaane ak yu mu ci taxawewut yu mu ci taxawewut fas ko yéene tuub boole ko réccu sart yi tuub di àndal yépp waaye lu mu ci defoon ci rëcci rëcci mu fab tuub defe ko garabam moo xam muy lu mu doxale di lu doxoon diggam ak boroomam yàlla di ko tere mu def ko walla lu mu tooñ mbokkum dëkkandoom wala mbokkum réew mi wala mbokkum jullitam rawatina ca moo tax waroom xam-xam yi nee nañ ku regle fii boppam ci àdduna dana woyafal lool ak régleem ëllëg ci àllaaxira ndax fu ci nekk bu fay teg tànkam dana ko xool waaye ku ñàkkal fayda faalewut la mu weesu lu ci nekk weesu na rek mi na jàll ci leneen bu ëllëgee ki si biir mën naa bokk ca ñay wax ne yaa xasrataa ala ma farratu fi janbillahi wa in kuntu la min asaaxirin yàlla ñu ci yàlla musal su boobaa réccoo fay sës te réccoo amu fa njariñ moo tax kii na a am xewal dëgg dëgg tàmbalee tey jëm ëllëg mooy koo xam ne saabu bu at jàllee mu réglé boppam lam def xam na lam defut xam na fas yéene nag li des ci at mii di ñëw lu ko fi fekk mu jeexal ko ci lu koy amal njariñ adduna fii tàmbalee fii jëm àllaaxira waaye nag bokk yi ku sàggane waxtoom faaliwu ko xadara bu tas mu dem ci beneen kaf ak ree ak lekk ak naan kese kese kese bis bu gaa yi di peese dana peese ni ñoom waaye nag lan lay peese réccu yàlla nañ ci yàlla musal noo ngi ndokkeel bokki ci at mii nga xam ne moom la ñu di ñaan suñu borom mu defal ko atum jàmm ak atum te mayuñu fan yu gudd yuñ ko mën a fekkee ci te romb ko ay ati at di ndokkeel bu baax a baax itam imam boobu nga xam ne dañ ko génnee ci am réew delloo ko fa mu dëkkoon wàcce ko fii Sénégal moom na sant yàlla te xam ne liggéeyam boobee am na jeexeet bokk yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ñu ko génnee màkka jamono ba mu doonee muhammad ibni abdillah daal jàmm dong la séqoon ak ñëpp moom sax naka jëkk jàmm la ma sa séq ak waaye ñoom itam jàmm lañ séqoon ak moom waaye kañ la tàmbalee am jafe-jafe ba ko yàlla ne qul ya ya ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia demal ca digg pénc ma ne leen mankat yàlla ma yónni ci yéen ñu ne li muy wax ku xam lu mu ñu laajante ko xam nañ ko de dañ ko bëggut a xam ca lañ ko tongale tongal mbooleem kuñ xam ne ànd nga ak moom ba génne ko dëkk ba fekk jëkk ñoo génne mbooloo mu àndaloon indi leen fii ci Afrique kon mbokk kuñ toñ toñal ci am réew ndax day wax ci yàlla nee na yonent bi nee na bañ génnee ko réew ma xajootuñ ko fa na sant yàlla xam na lislaam jaaxale woon na bis te te Afrique la jëm si woon foofee mu jëm nag moom ku ñu fa jëlee da war a sant yàlla réew moomee ku ñu fa jëlee da war a sant yàlla ndax ñoom gënuñ ci seeni nawle ëpple wuñ ca ñoo ca yées ndax ñoo dañoo bañ yàlla naka jekk diw moom dañoo bañ yàlla neex naa wax fii ci réew mi ñu dëkk ñaata lañ fi faagaagal seeni maam xëccewuñ alal ak ñoom de xëccewuñ ay suuf ak ñoom waaye pas-pas bañ yor lañ bëggoon a ñoom ñu lànk ñu faagaagal leen jotewuñu ak ñoom dara ba fi mu toll nii mënuñoo wax lañ ko teg ñoom kon ba kuñ fa jëlee indiwaat la Afrique santal yàlla te xam ne sa liggéey am na jeexee bokk yi ñooñu. fi ma teg ne ñu yës ci seeni moroom ku ànd ak ñoom sax dangay ngay ñee waaye kenn du la ñee ku ànd ak ñoom dañ lay da ngay ñeetaane donc waaye kenn du la ñee xoolal suñu réew yii rek xoolal ñi ñeneen àndal ñu leen gën a def lu nekk ñu leen gën a njaxlaf ñu leen daq liggéey ñu leen gën a ñawam xel ñu leen ëpp xam-xam kon ku ànd ak ñoom dangay ngay ñeetaane waaye kenn du leen ñee kon ku ñu fa jëlee ndax pas-pas santal yàlla te xam ne Afrique mu ngi lay gàttandu ak téeméeri loxo yam am tey laaj ku am ay yoxo yu ko abal mu abal ko mu gàttandoo ko ko yàlla na ko yàlla may fan wu gudd te may ko wér te xam ne moom awturam dugg na ci li bi ñuy nettali ci lislaam ba faw ka génn itam wax ne danañ ko génn réew mi ndax lii xajowuñ ko fii it dana dellu yàgg dem sawaraa ñu fàtte ko dëggaate ko lislaam ci yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin waaye nag ay ventilation assortie de lustre ah xanaa nag moom lii lu bees la dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle de bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu mucc ayib ay lavabo commode miroir led da ngay laal rek mu tàkk lii nag moo xarala dama ni du kenn ku dul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire de personne ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir seen kër seen waañ fépp daal si biir kër gi litres ba 500 litres tànn sa la neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture jàpp leen ni ñooy le numéro un des peintures peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus mani moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériel yu xarala nee naa la sunu ventilation si mbooleem marque am nañu ay windi 90 ay kulom tom kulom tom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine douche chauffe-eau nag waaye nag ba ci gën a neex mooy automatique léegi la ndox mi di tàng même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Xudus jàkkaarloog marché mbokk yi yomb ma tax ma bâtiment plus import notre force c'est la qualité. Des fontes de très bonne qualité afin de promouvoir la consommation locale. CCPS fournit des tuyaux d'irrigation, des gouttes à gouttes des Range Piper pour nos amis agriculteurs yéen waa Touba ak li ko wër soxlaatu leen ngeen di dem fenn ñëw leen ñu ngi nekk fii ci rond point héliport Touba CCPS Touba 77 529 48 12 77 082 31 18 CCPS Sacré-Cœur VDN 33 868 78 68 wala 77 615 32 32 CCPS rue Valmy 77 082 31 18 wala 14 80 CCPS rue Tolbiac 77 401 55 69 CCPS rue Fleuris 77 122 23 42 CCPS la garantie de la satisfaction au prix halal. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax ngir mu mucc ayib te lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte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 misrasmia bi jaayi xayri ma nabaat tey ni mu doxee ak fii mu àgg niiw na mbooloo mu jóg dara tax leen jóg ñu jóg àgg fa déedéet da gëm suñ tubaab amul benn société boo xam ne yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën a ëpp doole ci Sénégal wala bu ko lu ko ci ëpp doole doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax suñ tubaab suñ tubaab rek la ak mayam yëmul fu ngeen bëgg ma fa rek dina ko mën na ko fees ndokk bi nga xam ne man caa bokkoon fii lañ ma fekkoon ma ànd ko yéen ndokk bi nga xam ne caa bokkoon mbokki taalibe yi képp ku bëgg a barkeelu ci Touba ca kanam ngeen yónnee Wave wala Orange ne ci numéro bi 78 544 33 33 wala itam boo amee application Wave sa téléphone bu dee ci Orange Money itam mën ngeen a jaar ci dièse 144 dièse 410 818 dièse mbokk yi Touba ca kanam di buntub liggéeyal Serigne Touba ak ñaar téeméer dong jëfe ndigalu Serigne Touba Touba ca kanam ay xeeti cuuraay yi wute ngir yéen ñi nga xam ne da ngeen yëngu ci kurus wala xeeti parfum yi ngeen di soxla moo xam muy sikki gerle wala oud ak yeneen ba ci wàllu yi wala sérigraphie wala lépp lu jëm ci wàllu multi service waaye ngeen mën faa amee itam billet d'avion yéen ñi nga xam ne da ngeen di tukki waaye bu leen fàtte itam carte de membre yi nga xam ne moo soxal mbirum Touba ca kanam wala barkeelu yi bu dee moolu xasida yi am na mooli Touba Daaru Saam yi wala mooli Asna Xadim yi wala Daarul Himma wala yu Daaru Minam xasaayid yi bàyyiwuñ dara lépp loo xam ne daal soxal na jumtuwaayu murit ngir ay leeral mën ngeen a woote ci 77 144 03 03 wala 76 755 60 60